certainement président baa ngi euh, waaj génn donc euh, euh, service secret yaa ngi nii taxaw à moins que ñu jéem ko jaarale ci porte bi ci ginnaaw sénégalais yaa ngi taxaw pour mën a mën a mën a mën a mën a jàkkaarloo ak moom donc mi ngi noonu daw na daw na na léegi gis ngeen ko gis ngeen ko génn siwul jaare nañ ko à une porte dérobée donc voilà gis ngeen ko jaarale nañ ko ci benn port bu dérobé donc euh, service secret ma ngi ñu ngi noonu di dem ci ginnaaw ñu ngi di dem ci ginnaaw donc euh, nañ leen de je crois que mën nañ mën nañ mën nañu dem xoola presse baa ngi nele presse baa ngi nele di dem la presse est là mi ngi nii la presse sénégalaise ñu ngi dem ñoom ci seen oto il euh, le président est passé par une porte dérobée il est passé par une porte dérobée Il est passé par une porte dérobée. Il est passé par une porte dérobée. Euh, la RTS, les agents de la RTS sont là Les agents de la RTS, euh, euh, donc, euh, voilà, le président a encore fait ce qu'il fait le mieux, moins détalé chaque fois que les Sénégalais protesté euh, pour euh, que mu jéem a rectifier li muy def dans sa gouvernance euh, je crois que c'est une victoire du peuple sénégalais et que lii rek mooy wane ni boo defulee lu jub lii rek moo la lii rek moo la ci fekk oui voilà voilà voilà c'est ça mi ngi noonu oui oui oui oui waay waay. non dem daw na dem na. nous avons filmé nous avons filmé les cars et les voitures donc voilà sénégalais yéen a ko gisandoo yéen a ko gisandoo nous allons aller voir les journalistes. Macky dawatina Macky dawatina Macky dawatina. waaw voilà ñu ngi noonu ñëw leen voilà. Macky dawatina Macky dawatina. Macky dawati na Macky dawati na Macky dafa daw Macky dafa daw Macky dafa daw Macky dafa daw Macky dafa daw Macky dafa daw daw daw Macky dafa daw Macky dafa daw Macky dafa daw daw Macky dafa daw eh ana seen président waay te dañ leen bàyyi ko fi def seen seen ci wax Macky dafa daw daw daw Macky dafa daw daw daw d'aller rejoindre le président qui est passé par une porte dérobée. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui devant le siège FMI. Euh, nous avons protesté vivement contre la gouvernance du président. Nous avons euh, protesté contre euh, les pratiques honteuses du Fonds monétaire international. Je que le peuple sénégalais doit en prendre conscience maintenant. daa ngeen jëf mbokk yi bi moo doon deuxième vidéo bi nga xam defal nañ leen ko fii ci euh, fonds monétaire international ak seen mbokk texe day daa